asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu siiw si référence actu ñu ngi leen di dalal si seen plateau gan gi tey nag ñu am ñaari gan suñ ñaari gan yi nag c'est des gan yoo nga xam ne kenn dootu leen présenté muy Purposeur Purposeur The Writer ak kan mi ngi Demboog ak Emma Emma nag ma nga xamante ni c'est un grand beatmaker grand technicien nekk mm-hmm. porte-parole waa T T2S. Mm-hmm. muy tëngee hip hop. Mm-hmm. ñoom nag lu luy seen terang luy seen tànk tey fii ci référence actu mooy dañu amal dañuy waaj a amal festival tëngee ci hip hop. festival Tëngéej hip hop nag nga xamante ne muy euh, première édition. Mhm. muy lu njëkk si nga xamante ne mooy dëkk Maam Kumba Lam mhm. sama gars yi maa ngi leen di nuyu. Mhm. waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi nuyu waa référence actu di nuyu téléspectateurs yëpp ñi nga xamante ne tey ñu ngi scotché devant leur télé. ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu au nom de tous les acteurs des cultures urbaines. du département de Rufisque. waaw euh, Paul ñu ngi lay nuyu. waaw monsieur Cisco ñu ngi ziar bu baax. Mhm. donc c' est un plaisir d' être donc euh, di di découvrir am di découvrir les références actu mu ñëw enrichir un peu le paysage médiatique suñu dëkk. ba pare nekk ci nekk euh, entreprise suñu grand. donc un artiste comme nous. une référence aussi comme nous donc mm-hmm. mooy grand maam góor nekk sama mag nekk sama xarit. donc di nuyu aussi sama réalisateur bi ci ginnaaw. Mm-hmm. mister sa maam Saliou moom moom sama rakk la moom. waaw ah, sama rakk la donc c' vraiment un plaisir d' être là. ok un plaisir. c' est un plateau. Mm-hmm. mais Emma ci yow la ñuy njëkkee Tëngéej hip hop festival boobu c' est quoi. fait, Tenguet, déjà, Tenguet Hip Hop, c'est l'association des entrepreneurs culturels euh, département de Rufisque. y a des structures qui se sont réunies à un certain moment pour mhm. répondre à un manque boo xamante ne déjà mu ngi woon sévir bi Rufisque déjà parmi lesquels on peut citer le label Infinity Positive Record il y a le label Suñu Kaddu il y a euh, des cultures urbaines y a Crazy Boys Sénégal mhm. y a Africar. Africar, Africar euh, il y a aussi Jollof Events. Jollof Events. Euh, et donc, euh, si je me trompe Melo pas. exactement. Mhm. Donc, à un certain moment, on s'est réunis pour se dire que il est temps que Rufisque tey. Mhm. ku nekk tey domaine yaa ngi exceller. Mhm. yaa ngi liggéey donc pourquoi pas ne pas créer benn genre euh, symbiose. Mm -hmm. où on va travailler dans le domaine des cultures urbaines pour le, tout le département. c'est-à-dire que T2H ne se limite pas tout simplement à Rufisque ville, mais t 2 développement de Rufisque. déjà dans ces activités yu ñu on a à part euh, le symposium qu'on avait fait pour présenter le projet T2H euh, à tous tous les acteurs des cultures urbaines de Rufisque. on a euh, entamé benn acte politique bu ñuy wax dox mbok c'est-à-dire que c'est-à-dire que aller rendre visite tous les acteurs des cultures urbaines yi nekk dans du département de Rufisque pour leur présenter le projet mhm. et vraiment on a été vraiment content parce que ñoom ñëpp ils l'ont reçu d'une mhm. manière ils s'attendent attendaient au fait mhm. euh, existence structure bu mel ni Tëngéej hip hop donc en grosso modo Tëngéej hip hop ci euh, loolu mooy Tëngéej hip hop dans ces mêmes perspectives on s'est dit que pourquoi pas ne pas commencer suñu activité par un édition du festival Tengej Hip Hop. Mhm. Euh, boo xamante ne euh, on fera de notre mieux pour rassembler tous les acteurs culturels du mhm. département. Mhm. jéem a euh, en passant par des formations. parce que comme on le dit toujours. pour mën a euh, faire avancer les cultures urbaines au niveau du département de Rufisque mm. c'est-à-dire qu'il faut certaines démarches ci ci démarches yooyu bon il y la formation il y a l'information mm-hmm. il y a aussi bon les les les les les activités comme li ñuy wax ay concerts mm-hmm. plateau c'est ça ci logique boobu la ñu la tënkee hip hop nekk actuellement mm-hmm. mu nekk première édition xam naa dañuy tourner vers le porte étendue <laughs> du hip hop départemental muy muy muy Popeseux du pôle mu nekk ka nga xamante ni c'est quelqu'un que tout le monde respecte tout le monde respecte ku ku ku ku yaru ku mm-hmm. baax c'est mm-hmm. ça mm-hmm. c'est identité boobu la ñëpp am ci moom mais mais Paul bu ñuy ñëw ci ci ci euh, festival Tëngéej hip hop est-ce que du benn euh, euh, festival rek comme yeneen festival yi ah <laughs> festival gars yi ngi def festival ñun tam def festival est-ce doo leen dugg ci loolu xam nga déjà pour faire bu dee bu dee ci festival rek la jëm Euh, Emma mu ngi ci huitième édition euh, Kaikes festival Kaikes man yaakaar naa def naa trois éditions Loge des Poètes mhm. def naa ko Sorano def ko CICES def ko Michelane bu Thiès waa Crazy Boy Sénégal am nañ festival bu tudd Feccal ma benn festival de danse mhm. donc euh, écho des cultures urbaines ñu am si fat c'est-à-dire Tëngéej hip hop dafa boole ay entité ay entité yoo xam ne dañoo def seeni i preuve ba pare mhm. dañu yàgg organiser dañu yàgg produire dañu yàgg def lu bëri mais ñun à un moment donné on s'est dit que ñëpp mën nañoo business mën nañoo liggéey. effectivement mais à un moment donné foog ñu jéem a tabax teg ay base loo xam ne dinañu jariñ ñun jariñ suñuy rak dans l'avenir parce que Rufisque dafa soxla ñu changer en fait c'est l'environnement culturel qu'on doit changer en fait. ku ci nekk mu ngi liggéey. mu ngi liggéey waaye maanaam damay dama naan damay gàcceewu man su ma toogee depuis 15 ans su ñu wax hip hop wala ñu wax rap benn benn nit la euh, te on a beaucoup de parce que suñu problème mooy amul une bonne politique culturelle à Rufisque comme politiciens dañoo lajj foofu. ñun tamit dañuy on a aussi notre part. de responsabilité de que boobu léegi on est tout le temps la à se tirer dessus man maa gën a ay ma maa gën a garaaw ku nekk di jaay garaaw. <laughs> te pour man am solo mooy. kenn on parle plus de culture on parle d' industrie créative donc actuellement li ñuy def daf ñoo war a jariñ jariñ suñuy gox former suñuy rakk utal leen ay liggéey yóbbu dépense ci kër yi foofu la hip hop tollu jamono ji donc soo xoolee l'initiative tënk hip hop affaire loolu la mhm. donc lu mel noonu xam nga lu baax moom kenn la ca oo nga yéexantu bi ma Emma ak Lamine ne kar dama leen faal yéen kër da ngeen yéex a wax mais amaana peut-être tey la ñuy ñor tey am maturité wu Mm. assumer rôle boobu. lu tax ngeen xaar ba heure bi soog ma woo quoi. ah <laughs> euh, man maa ne waroon woo sax. parce que ku lima ma wax ku ci nekk ak sa responsabilité. c'est-à-dire lu ñu waroon def bu yàgg la mais sunu borom da koy soog a tudd. Mm-hmm. waaye peut-être tamit léegi la yomb léegi la ñu am maturité bi léegi la am bagage bi. Mm-hmm. pour mën ko pour mën ko mën a. pour pour mën ko def mais Emma ma dellu si yow euh, maintenant euh, teg ngeen ko defoo leen festival comme ñëpp yéen da ngeen di def festival mm-hmm. mais lan mooy seen objectif bon déjà suñu objectif comme je l'ai c'est-à-dire que être benn pont boo xamante ne non seulement être le pont entre les acteurs des cultures urbaines avec nos autorités parce que comme ni ko Paul waxee dafa am benn domaine boo xamante ne ci côté culture suñu autorités yi bon dañ ci xaw a un peu mm-hmm. donc ñun tey l'objectif premier mooy ñëw déjà li suñu politique yi ñu jëm ko rétablir mm-hmm. comment rétablir comme on l'a dit c'est-à-dire que y bagage bi mu ngi fi déjà expérience bi mu ngi euh, euh, mu ngi si huitième édition donc je pense que ku teg huit édition festival équipe bu ko teg je pense que am nga expérience donc euh, y a euh, aussi euh, festival Fetchalma boo xamante ne waa Crazy Boys ñoo ko doon teg y a mm-hmm. Loge des Poètes mm-hmm. y a Top 5 boo xamante ne mu ngi si septième avec Mbass mu ngi si septième édition ainsi de suite ainsi de suite mm-hmm. donc c'est-à-dire que c'est maintenant c'est le moment idéal bi nga xamante ne war nañ daje parce que c'est-à-dire que besoin la woon besoin la boo xamante ne mu ngi fi woon mhm. te on a vu plusieurs associations qui ont existé mais malheureusement qui n'ont pas été à la hauteur mhm. donc euh, T2H tey loolu loolu la ñëw changé c'est-à-dire que avec toute l'expérience bi nga xamante ne emmagasiné nañ ko au fil des années nga xamante ne bon on l'a acquis d'une manière ou d'une autre day andi ko au service euh, de de de de de notre département tu donc déjà indi nañ ko y a l'expérience qui est mhm. bi nga xamante ne tey moom la ñu war a tenir le bon dialogue bi ñu war a tenir avec nos autorités déjà on est prêt à le faire mais déjà il faut que ñun ñu ay preuves wane ne déjà on est à la hauteur donc il y a aussi la ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises mhm. tey il y a beaucoup d'entreprises qui sont actuellement à Rufisque la RSE e. e, dans le cadre de la RSE dans quelle proposition tey entreprises yooyu ils auront tey pour pour pour pour euh, les les cultures au niveau du département de Rufisque mhm. déjà euh, tey ngay T2H elle va jouer ce rôle mhm. être ce pont entre nos entreprises mhm. entre les autorités mhm. et entre aussi le mécénat comme ni ñu koy waxee c'est euh, c'est important c'est important mais t des euh, h am na mais gis nañ fi Euh, lu mel ni Afrique culture urbaine. Mhm. gis nañ lu mel ni ji i hop. ñu gis seen dëkk liñ euh, impact bu ñu am. dans la jeunesse dans dans dans la réinsertion de. Euh, même ñi demoon kaso. yooyu yëpp est-ce que on peut s'attendre à ce que T2S taxaw taxawaa boobu noonu fii ci Rufisque. waaw man de pour ñun en fait loolu mooy essence même T2S en mm. parce que ñun sooy sooy sooy juddu tamit da ngay inspiré wu si ñi si ñi def ay résultats. man je fais des tournées tous les ans avec Malal. Mhm. ak waa ji hip man maay formé booy nekk Forbé. Euh, euh, Forbé effectivement <coughs> jégalu donc man maay formé booy nekk Forbé donc cest à tey jii gis nañ njariñ bi les cultures urbaines mën a am ci gox. Mhm. njariñ bi mu mën a am ci communauté. Mhm. moo tax soo gisee lu baax. da nga koy toppandoo sa dëkk donc c'est-à-dire essence parce que Tëngéej sax même soo xoolee tey le festival bi biy dëkk ma la mm-hmm. activité de formation yi ak activité d' atelier yi ñoo ëpp sax ay date parce que li ñuy wax chaque fois soo bëggee seetaan concert bi proposé di nga ko am ci at mi yëpp mm-hmm. soo Crazy Boys di ngeen seetaan mais ñun li ñu gën a soxal mooy nan la ñuy tàggatee suñuy ndaw dañoo war parce que la jeunesse a besoin d' outils mm-hmm. t 2 nag foofu la gën a sax accès combat ñun c'est l' c'est la formation. léegi nag entertainment beeg mumbaay beeg xumbaay bi dañ ko def lu mën a ñàkk la. waaye li ñu gën a ñor. Uh-huh. mooy na hip hop bi nekk source d'opportunité. et de incomes pour xale yi. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que hip hop bi daa war a jënd saako ceeb daa war a fay. daa daa war a fay courant. Euh, mais est-ce qu'on am benn centre t 2 euh, boo xamante ni euh, mooy moom moom mooy moom mooy nekk réceptacle. mooy mooy yéene bi de pour l'instant parce que déjà j'en profite pour lancer un appel. parce que waa Géejawaay. Mhm. waa waa Africulture Ban. Mhm. centre culturel Léopold Sédar Senghor. bu Pikine lañu nekk. waa Géeja waa ji hip hop. centre Waxinaan bu Géejawaay la ñu nekk. Mhm. ñun nag amaguñu fu ñu nekk. pour l' instant on a nos différents bureaux nos différents sièges parce que ku ci nekk si ñun am nga entreprise bu mag. am nga studio am nga ay bërëb donc ñàkkuñu fu ñu nekk. waaye ñun suñu demee ba takku pour liggéey pour dëkk bi waxuñu sax pour ville de Rufisque nous on travaille pour le département de Rufisque donc la moindre des choses même tey nos politiques suñu mënul appuyer mm-hmm. au moins nañu jox bërëb nañu jox foo xam ne mën nañ fa toog ndaw yi di ñëw ñu leen di ndaw yi mais euh, Rufisque euh, Pikine wax nga ko mm-hmm. centre culturel Léopold Sédar Senghor ji pop waaw wax naan jox leen jox leen jox leen mm-hmm. espace mais par contre à Rufisque loolu amul fi amul infrastructure à part centre culturel Maurice Guèye. non c' est c' est privé. c' est privé amul infrastructure ba nga xam ne mun nañu yaakaar mu héberger leen. Mm-hmm. mais du. mais mais mais tey jii déjà rek ñun ñaata batiment ñaata batiment administratif wala ñaata batiment la mairie moom biir ville. te ñun les cultures urbaines sunu borom dafa def na nous sommes très très débrouillards. Mm-hmm. ñun jox ñu luy yànq sax ñu defar ko. ñu defar ko waaw ñun ñu laaj ñu lu bëri de. <laughs> ñun nañu jox luy yànq sax. ñun ñu defaraat ko moom taxaw ngeen defaraat ko waaw parce que ñun yaafu suñu quoi. Mhm. waaw <laughs> euh, ci ñu dellu si festival bi tuuti. Mhm. Euh, Paul wax na léegi nii da ngeen di euh, privilégier les ateliers de formation. effectivement pour l'éducation et tout sax mhm. maintenant festival bi kañ la ak nan lay demee. bon festival bi déjà ce serait du euh, 29 octobre au 5 novembre. Euh, bon déjà plein d'activités yi ñu war a def comme ni ñu ko waxee rek. les formations parce que euh, objectif T2H déjà c'est former les jeunes non seulement les former mais aussi les informer mmh. parce que euh, comme euh, ni ñu ko waxee Rufisque est une ville de de d'histoire et de culture mais on n'a pas de centre culturel ce qui est dommage euh, mais n'empêche que t des h actuellement mu ngi cherche benn siège boo xamante ne dinañ mën a installer wu foofu installer wu foofu dinañ fa prévoir salle de formation mu nga xamante ne on on voudra faire des formations en permanence pan tu non seulement euh, def fa benn salle de documentation où nous on ira prendre les informations et la l'amener et au cours du festival on prévoit déjà cela parce que déjà on prévoit des des des conférences on prévoit des panels on prévoit des plateaux de danse c'est-à-dire que dajale Euh, corps yi nga xamante ne tey yëpp ñoo nekk ci culture urbaine parce que culture urbaine dafa large. Mm-hmm. ñu bari quand parle de culture urbaine ils pensent que ne rap kese la. Ah. mais danse graffiti. Mm-hmm. yooyu noonu yëpp bokk na ci culture urbaine donc déjà pendant durant le festival. Mm-hmm. qui sera du octobre au novembre. déjà bëgg nañ dajale jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ci dans le monde de la danse. ñi nga xamante ne ñu ngi ci dans ci monde graffiti ñi bëgg aussi DJing parce que déjà on a fait l'appel à candidature. pour ñi bëgg a def du au moins. Mhm. Euh, euh, am commune bu nekk war nañ am benn DJ. parce que dafa manqué. parce que tey Paul mii mën na ko seede tey moom suy def concert am. sama DJ géejewaay la géejewaay merci beaucoup. ni na donc déjà ñun tëngeej fii am nañ pourtant DJ yu mag mhm. yoo xamante ils ne sont pas connus. c'est vrai tey on de passage on peut saluer Toch. qui est là qui est un bon DJ c'est le seul. exact c'est le seul déjà <laughs> donc déjà euh, à partir de Toch mën nañ mhm. exploiter parce que ñoom ils ont structure. ñu ñëw ci ci daf ay atelier de danse mm-hmm. daf des ateliers en graffiti déjà loolu c'est un début on avait même prévu des ateliers d'écriture mhm. avec Paul moo xamante ne tey ñi nga xamante ne ñu ngi dans le monde du hip hop mhm. côté bind yooyu ils peuvent venir mhm. donc là comme ni ko Paul waxee rek moom mbaay bi xumbaay concert yi ah. tu vois yooyu tamit si la bokk <laughs> parce que tu vois mënuñu ko si omettre parce que déjà y a des labels de production yoo xam ne déjà ñu ngi ay labels fondateurs DTH des artistes donc tu vois comme seen yi gis dans les dans les dans les grands festivals à Dakar dans les grands festivals tu vois sous-région bi donc oh, déjà euh, loolu la ñu bëgg a def euh, première édition bi mm-hmm. et j'espère que comme ni ko Paul waxee rek on lance un appel à tous les Rufisquois mm-hmm. à tous les autorités à tous les eh, entreprises est-ce que est-ce qu'ils ont ils répondent bon bon on a ah. déjà fait les dépôts mm-hmm. donc euh, il y a certaines qui ont répondu par contre il y a d'autres yoo xamante ne bon ñu ngi xaar seen seen réponse mm-hmm. mais on a on a bon espoir quand même. ok mm-hmm. mais man dama leen di interpeller si benn affaire. Mm-hmm. yéen a ngi waajal festival Rio hip hop. Tëngéej hip hop est-ce que yéen a ngi si l'aspect environnement est-ce que eh, eh, yéen a ngi ko ci. bu baax xel bu baax. ñu ngi si environnement bi déjà yaakaar naa ne même budul même budul ci édition bi sax parce que ñun en fait yemuñu rek ci c'est-à-dire festival bi c'est pas le des activités de Tëngéej hip hop. Ah. parce que en 2023 déjà on lance l' académie académie la ñuy la ñuy tij la ñu a tij en fait loolu mooy mbébét bi loolu mooy projet bi ñu nekk di liggéey donc en dehors de ça aussi on travaille avec euh, Grand Idrissa Thiaw mhm. mooy la zone écologique communautaire donc euh, en dehors de moom on travaille aussi sur des questions de gouvernance en fait tëgg hip-hop nag dafa dafa yaatu dafa yaatu tey jii tu n'as même pas un tiers de l'équipe donc dafa dafa yaatu xam nga tey jii soo boolee les xam nga ñun déjà par essence ay entrepreneur culturel léegi soo dagalee nag les plus gros cerveaux ou les structures yi gën a mag ci département bi yëpp xam nga ne kooku tu as la matière. c'est-à-dire tey même yenn formation yu bëri soxloo ñu sax def outil formateur. parce que am nañ matière bi fii. ça existe am nañ ko tey jii mbirum entrepreneuriat culturel. soxla woo ut. non quand tu as Oli Blaise kenn Sénégal. en matière de danse quand tu as Mbaye Crazy Boys. ku fa koy uti Sénégal. Mm. donc en matière de MAO nangam sàngam ak mix tu as MA. mais teewul tamit ah, dañu dañu lëkkaloo ak association yeneen yëpp suñu naatango yëpp. que muy ji paaw que muy agriculture que muy mm-hmm. maa ko def entre man association yu mag yëpp dañ nara ñëw. Mm-hmm. dèjà kaay fekk dèjà sax ñoom ñoo ñu gën a sax bëgg euh, eh atelier danse yi <laughs> donc ñoom di nuyuwaale Gasira bu baax. Mm-hmm. donc c'est-à-dire ñun ñoo mujjee juddu. waaye dañu judd rek suñu borom def association yu mag yëpp accueillir ñu à bras ouverts. parce que xam nañ ne plus mu am ay pôles yu fort au niveau national. Mm-hmm. après dinañ mën a am. convergence convergence mën a am mën affaire bi gër mën a jariñ ñëpp. Mm-hmm. donc te jii affaire njariñu tënk hip hop loolu la. te dama koy wax chaque fois ma koy répété du alalu Peupeuse moom ma ko du alalu Emma du alalu kenn si ñun. Mm-hmm. c' est pour le bien commun. Peupeuse il a son label qui s' appelle Sunu Kaddu Record foofu laay business. Ah, mooy business. ah mooy business. mais lassociation association Tëngéej hip hop franchement yéen bi ñu ci am ñun mooy bâtir loo xam ne amaana peut-être sax duñ jariñ. mais planter les bases def fondement boo xam ne su suñuy rak suñ ñëwee ñun jafe-jafe yi ñu doon am ñoom duñ ko am ils seront formés outillés xam fan lañ jëm ok eh, Emma xam naa dañuy tàggoo mais le dernier mot de Emma bon le dernier mot déjà comme on ni ko Paul waxee rek objectif T2H loolu parce que on a des objectifs très nobles euh, pour les cultures urbaines au, au, niveau de de Rufisque te je pense que on a essayé de faire euh, passer le message et ñu ngi invité encore ñi nga xamante ne peut-être euh, à travers cette émission mm-hmm. peut-être seetaan nañ ko te si objectif bi tamit ñu ngi am envie boobu que ñu ñëw rejoindre ñu parce que mm-hmm. comme on l'a dit ñu ngi oo tey euh, tous les Rufisquois ñi nekk ci domaine culture urbaine mm-hmm. ñi nga xamante ne ils ont mën nañ apporter dara mm-hmm. donc ñu ngi leen di inviter à ce que ce que ñu ñëw parce que comme ni ko Paul waxee ce n'est pas une association pour Didier ni pour Paul ni pour Emma ni mm-hmm. pour qui que ce soit c'est une association pour les act pour les les, les acteurs des cultures urbaines euh, yu euh, département de Rufisque donc ñu ngi remercier déjà Euh, waa référence actu di remercier aussi suñu partenaires yi nga xamante ne dès le début mm-hmm. ñoom aussi ñu ngi jàppale lu mel ni la fondation Sococim lu mel ni le festival Kay Fecc mm-hmm. lu mel ni J-pop lu mm-hmm. mel ni euh, Africulture MCU MCU ñu ngi maa ko def waaw def déjà ñu ngi accompagner euh, déjà démarches yi en matière de conseil en matière de waxtaan en matière de de tu vois logistique yooyu yëpp ñu ngi ciy accompagner déjà ñu ngi leen di remercier si loolu et j'espère que d'ici festival bi dina am ñeneen ñoo xam ne ils seront réceptifs mm-hmm. tu vois pour comprendre l'essence du festival T2H mm-hmm. ñu ñëw rejoindre ñu ci ci combat boobu te te aussi pour rajouter aussi ne am ñeneen ñu mel ni suñu grand maam góor effectivement ah, parce que il nous a reçu a moom maanaam en dehors de l'artiste en dehors du politique c'est un mécène du festival ah, donc ni mu amee moom am nañ tamit suñu yeneen grand am ñu nekk au Sénégal am ñu nekk aussi dans la diaspora parce que ndamu Tëngéej culturelle et une destination touristique. donc foog ñëpp ñëw jàpp ci. Mhm. ñun suñu yéene lañ am ak suñuy maigre moyen te on va donner le maximum. que mhm. nit ñi ñëw dina am que nit ñi ñàkk ñëw dina am. Mhm. waaye li rafet mooy ñu defandoo ko ñun. ñu defandoo ko ñu ko ñëpp. voilà faire de une destination. ku jóg ku kit Sénégal rek dellu si. Ah, parce ñu fàtte historiquement. on le li ñu nekk li li Rufisque mos a tekki ci mm. Sénégal. Mm. gars yi ma kontaan lool lool dadaloon leen suñu plateau. merci beaucoup ci référence actu di kontaan di di di di aussi di di woo tous les Rufisquois mhm. surtout de la diaspora mhm. ñu xam ni c'est des jeunes Rufisquois mhm. qui qui se battent tous les jours qui se battent tous les jours pour nga xamante ne pour représenter Rufisque tey ils se sont donné la main pour fair un festival bi nga xamante ne depuis Souleymane Gueye Ciss gisuñu festival à Rufisque ak festival bu munta doon tey ku mel ni Peupeuse am nekk icône au niveau du hip hop. waa mhm. Rufisque rek du euh, au niveau national ku mel ni Eman. Mhm. nekk li mu nekk au niveau du euh, département. Mhm. ñëw dajale leurs jeunes frères dajale leurs semblables. pour faire quelque chose à Rufisque. donc ñu ngi leen di woo yéen ñëpp tous les Rufisquois foo leen nekk ak di ñu déglu ñu ngi leen di woo du 29 ans. au 5 novembre du 29 octobre au 5 novembre. ngeen ñëw ñu partager le premier la première édition du festival Rio. Tëngéej hip mu nekkoon tey suñuy gan waa Tëngéej hip hop ñu leen di dig daje beneen jotaay ci yeneen ak yeneen i invité